أنت روحي في نفسي والجسماني أنت سري وسر سر فدم لي في حياتي لا دخول الجنان أيا خديم رسول حبك الديني أنت عبد الرحيم والرحمن أيا خديم رسول حبك الديني أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم النبي السلام عليكم وتحيات الله بالردوان مرحبا مرحبا نالا وشالا بكم وعد كل عرف القرآن نجي ما يلي في ابن يو دي <laughs> ما نام نك دا بوغون دا nga agali nuyo waaye bu noppee si nuyoo bi nga tënkal ñu li nga xamante ne ndax maam dégg ko rek boo déggul lu mu wax sax maam dégg ko rek maam day am lu muy def si xol lool waaye aywa bisimilah nuyoo ba noppi. waaw. dama ne sëñ maam maa ngi lay fay am nuyoo waaye di jaar ci bëy ci maam Cheikh sàmba yooyu. mu daan nuyoo sëñ Tuubaa. bu ko masaana jub ci keesi njaareem yi moom lay jàng ca kaw. Mm-hmm. fa sëriñ bi mën a nekk ci biir kees gi nga dégg bunt yi di telli telli muy ibdu ku di ñëw ndax nuyoo bu sell te matale te moom sëñ Tuubaa mu defoon ko fa ndax sëriñ bi moo may sa la wax ma wax moo tax li ma daa wax seen saf sëñ Tuubaa ci xolam kon maa ngi nuyu àdduna bépp jaar ci bayitam yooyu nuyu ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi ko fi nekkal nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sarr sunu bunt ak mbooleem foofu taalibe mën a nekk mbooleem foofu jullit mën a nekk waxtu yi daa dem lu bari ah. dañu xaw a yeex ndax yu bari rek mm-hmm. waaye dañuy jéem a dabu dañuy bañ a guddal lool xam nga laa bëggoon nag maanaam bayit yi dama bëggoon nga siy jaar bayit par bayit sunu waa ji maanaam di ko leeral nu am nu mu koy def daal yow waaw waaw dafa wax ni waaw rahmatullahi yërmande yàlla Cheikhul Khadim yaa na aljinaani mooy xéewalug aljanna Cheikhul Xadim anta hibbi yaay sama soppe wa anta nuurul janaani yaay sama leerug jëmm xuratal ayni yaay sama seddug xol yaa bushaarata bi yaay sama mbégum xol anta tiibul fuaadi yaa rayhaani yaay dalal sama jëmm te yow yaay noyyi gi may noyee anta baadi yaay yaay sama lenn yaay sama genn wàll wa anta nisfi wa julli yaay sama xaaj waaye yaay sama lépp sax far anta kulli yaay sama lépp yow cheikhul xadim fii sirri wal i'laani ci lu nëbb ak ci lu feeñ yaa tabibal adwaa'i yow ñi feebar yaa leen di saafara anta tabibi yaa may faj man seex Samba Diarra bikaar ju dawaa ci yow laay sàkkoo saafarawu kulla zamaani ci bépp jamono yaa surural xuluubi yow yaay mbégum xol yi anta sururi yaay sama mbég bi ka ci yow lay dundee bi zikri kulla maka di la tudd ci bépp jamono ak bépp saa yaa xayaatal yow yaay ak dund ci ak dund anta xayaati yaay sama dund man Cheikh Samba Diarra anta ruuhi yow sama ruu Cheikhul Xadim fi nafsi wal jusman ci sama jëmm ak sama ruu anta sirri sama secret wa sirru sirri faddum li yaay sama secret secret nag ma ci sama dund ilaa tuxu duxulil jinaan ba keroog nuy tabbi aljanna yaa xadima rasul awaa yow liggéeykatub rasulillahi xubbuka diini man bëgg la mooy sama diine yaa xadima rasul yow mi liggéeykatu rasulillahi yow bëgg la mooy sama diine ata abdourahim yow yow yaay abdourahim yaay abdourahman yaa xadima nabi yow yaay kii liggéeyal rasulillahi asalaamaaleykum maa ngi lay wax asalaamaaleykum wa tahiyatullahi maa ngi lay nuyoo nuyoo bàyyi ko ci yàlla lu ànd ngërëmul yàlla marhaban marhaban dalal marhaban mang lay ndokel ahlan wa sahlan dalal ak jàmm bu ko mood nda maa lay nuyu nuyu bu sell kulli harfi qur'an mang lay nuyu ci limu arafi al qur'an nagn la man Cheikh Samba diara limu arafi al qur'an ni million araf yu tegal ci al Quran. la nuyoo ma ne ko oh. <laughs> jërëjëf kéemaan kemana? Ah, mii kéemaan nga kemana? waaw waaw waaw ah, yow kéemaan nga waaw loolu la ko daan waaw sëñ Tuubaa saf gu ko saf wax ji saf. ak xam na waxi boppam ma dëgg nu ci may nusxa. Mhm. da nga ci may aw kayit nu nu barkeeloo ko. incha allah ndax lu mu gën a yaatu gënal ma ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha. daf ma wax ni ma su ma sañoon. Mm. Mm. nii mu ma ñoree mu àgge noonu ci taalibi murid yëpp. ñun mm. de ñor nañu. waaw nii mooy kuy tëwoowee. Ah. Mm-hmm. ndax liggéeyam bii kat. Oh. day lu nu dencoon ci yow. waaw tubaarkàlla wax naa la digalal di ko jàng te di ko jàngale. gis na ko tey tubaarkàlla. boo yemu ci de. waaw soral ko boole ci. waaw dëgg la waaw gis nañ nataal yi waaw dëgg la de. léegi waaye nag eh, xam naa. Ah. Eh, ni mu ko wax naa dara Cheikh

plateau baa ngi doog a tàmbali na bismillahi rahmani rahim maa ngi tàmbalee ci turu yàlla mi rahman te rahim allahuma salli wa sallim maa ngi lay ñaan yow yàlla nga jullit te sëlmal te barkeel ala sayidina wa mawlana muhammadin kay ki sunu sang tey sunu kilifa moom Seydina Muhammad wa alihi wa sahbihi awa alihi ak ay ñoñom wa sahbi ak i sahabaam kama ansalta alayhi alqur'ana kam na nga wàccee ci moom alquran moom rasulahi alxasima almuazzama alquran mooy lu mooy lu ñu teddal lazi la yaatihi albatilu ay caaxaan nag mënta indi alquran min bayni yadayhi wala min xalfihi ay loxo la ñuy indi alxuraan ci yàlla lay bàyyi ko. fii sahri ramadan. ci weeru koor la yàlla wàccee alxuraan. sahitu anna Allaha rabbun waahid xaadim nee ne seede naa ne yàlla benn buur la cappaculi la moom yàlla walaysa yanuni asan aw jaahidu aw lor du ma jublu ku soxor baa ku añaan du ma jublu hibaatu silar silasimi samadi yàlla mi nga xam ne kenn la kott la moo may mayam yi lii wasalat bi mustawa muhammadi mayam yi dikk na waaye ci dara ji rusulaay li dikk ci man rabitu fi tijarati rabhan yafu tonawu naa ci sama jaayante tonaw go xamne ne gétti na rabbi khalifati wa jari wa rafi yalla moy sama dekalé moy sama andalé man khadimu rasul raditu an wa radin anni gërëm naa fi yalla way yalla dina ma jërëjëf yow abdul Khadim. wa kana li bi karamin wa man yalla nekkal na ma ci teranga ak dolima ay may minanu alaya laysa tanfadu yalla may min ak du jeex ci man khadimu rasul ndax kullu makhluqin siwaye yen faddu nee ku yalla jox da nga jeex la mu dess man khadimu rasul wa innani ilaa ridaahu axfidu waaye ci ngërëmu la nag laay daw wiiru ji man xaadimu rasul dana lazi yasunnu ni xayral xadim réer na sanku na dof na ku jort na damaa doon leneen lu dul abdullahi wa xaadimu rasul lil mustapha la si siyaadatun tadu mustapha mi nga xam ne moo moom ak càng moom rek laay doon ab liggéey katam ashaba baaxin laa yazaalu mushiba dàq na yóbbu na dina na aji des ji nga xam ne masta dañ bi aji dindi ilaa siwaaya darari fasa sababa aw lor sunu borom dina nako ci man mu set wicc ci man khadim rasul nafa ila siwajatil wahid neena sunu borom mi nga xamne moy wahidu dina ci samay wal man khadim kullu azan wa ma nahani ja kullu azan wep lor wa ma nahani duma jublu jahidu aji sohor bismillahir rahmanir rahim kon ma ngi tambale wat ci turu yalla man khadim rasul allahumma salli wa sallim wa barik yow yalla yalla nga julli te sama tabarkel ala sayyidina wa maulana muhammad kay tey sunu sang tey sunu kilifa moom Seydina Muhammad wa alihi wa sahbihi ak ñam ak sahabaam moom Seydina Muhammad waxfir li jamia ma taqaddama min zanbi nag ma jéggal lépp loo xam ne jiitu woon na ci bàkkaar tama mas koo def wa ma ak bakkar bo xamne dana ñëw taxamaguma wa habli ma siqtu indaka bi barakati sahri ramadan nag ma may ci dara ji jublu gi ma la julli ci tedd ngay wéru koor zakatu rabbi adadal khalaiq khadim ne sant naa yàlla adadal xalaayiqi limu yàlla bi delluwaatoon ci bayit bi zakatu rabbi adadal khalaiq mo xam tokki ndox la mo xam feppi suuf la mo xam xobi garab la mo xam ay bëy lañu mo xam ay xar lañu mo xam ay gilem lañu suñu joxee lañ tollu ci àdduna sant naa yàlla cant gu ne toll man xaadimu rasul sakartu rabbi adadal xalaiq moo xam nit la moo xam jinne la moo xam malayka la lu ñu toll ne sant naa ko yalla man xaadimu rasul sakartu rabbi adadal xalaiq moo tax mu waxoon ni yéene naa sant yàlla cant gu am dina ko duy ci asamaan ak su ba mu fas del ak xeeti cant sakartu rabbi adadal xalaiq na sant naa yàlla lu tolloog li mu lam bind lépp lu ñu toll ko yàlla mu di ko wéetal wéetal goo xam ne moo yàlla ci jëmmam jëmmam yàlla huwa al ilahu laa ilaha xayruhu xaadim ne ne huwa al ilahu mooy buur laa ilaha xayruhu amul benn buur budul moom wan xaadali ila al jinaani xayruhu tabakaroon nuy dem aljana jox na ma aw yiwam moom yàlla radatuma wajahu saw dalal la nga xam ne nag ñi réer dañ koo jëme woon fi yàlla dindi naa ko man xaadim mimma lahu wasaanani an ixtilal lépp lu yàllul ci jëmm yàlla far naa ko man xaadim rasul rumtu sukura bi sikril Konang kon nag maa ngi sàkkoo am ngërëmul yàlla ci tedd ngay alquran wa kaana li bi xalqi aadatin azim yàlla nag defal na ma xar baax boo xam ne moom yàlla dong moo ko man malakani alquran tamlikal jamil Yala mengi ham nemoi jamil mo mai al Quran mo mo ko moom wali siwa maktar li lastu ami. Konang lep lépp lu ma yàlla tànnalul duma ca jàng jëm man mo rasul Amin ali takar man sa. Yala nak nama mo ma tamponel ak texe man xarimu rasul qad li sirran wa qarqaa moo jox secret dolli ma may xar man khadim illa yaqaada fil mabaaxil al asma le a lew ta dagan sunu borom may na ma ci tedd nga wala yurini dara man taasama sunu borom nak duma wanele ko kep ko xamne day ri ri lu ba fetir féttéerlu naajaytu man li fataxal abwaaba kon nak ñaan na yalla mi nga xamne moma moo buntu yi bil bisri qaidan ila sawab sunu borom moma jox aw yiw jox ma ay mbek man khadim rasul wa barakaati xayrihi ah. ak barke bi yiwam wa min jami suhuri amin ya rabbal alamin yiw wi nekk ci weer yëpp sunu borom may na ma seeni barke man xaadima rasul loolu mooy tarjumaani xasida gi ñaari xasida yëpp chahru ramadan la ko tënk xayra kon yaa jàll nga ci geneen xasida mooy weer wu ñu nekk rek nee na weeru koor gan la goo xam ne maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay dalal yow weeru koor ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi dalal ak jàmm maa ngi lay tatagal maa ngi lay ndokkeel yow shahru ramadan la zilta dayfan kariman sairan abadan mosoo dañ di gan goo xam ne da ngay ñëw ci at mu nekk di nu siyaare si yow weeru koor mukarraman bi xiraatahaati wasadadi amul lenn lenn luñ la mën a berneele baa ñu taral dul xanaa di jaamu yàlla ci biir weeru koor muazzaman inda rabbin la sharika lahu ويرو يلا مقل ويرو يلا ورمال ويرو يلا ترى الموم رسول رمضان عند أهل التقاء والعلم والرسد نانا نخم يلا بانيو رقل يلا بانيو جب ورمال نشهر رمضان لازلت ما هي أوزار وقاضي أو نانا موي فر أي بكار موي آج موم شهر رمضان تار وتار لا خيار من الخلد لطب تسومي تبكل تسومي سنبورم سبكو شهر رمضان وسافدا كل سيطان بما أماه nana ci daraje yi weeru koor la sunu borom jingi setan, ak kiku and ak seytaane wa mutarifan li sawil ihsan bi safadi ci la sunu borom di teub ay may kep ko xam da ngay selal ci daraje yi wi wa musiban kulla ahzan nadiq biha ndakaru ne ci ab xol sunu borom mu ngoy fara ci tëdd ngay wéru koor dahri afidatan ya musiban nakadi ndax nëxi jamono it sunu borom mu ngoy dindé ci daraje yi koor wa zaidan kulla amin ma nafus bihi at mu ne xaadim nee koor bu dikkee fekkee dolliwaat nu ay may yu amutoon. min juudi muxnin karimin naafi'an sayyid yàlla miy tëbb ay may di dolli ay may mu ngi nii dolle ci dara ji suur Ramadan. ok ok yow yàlla yaa nu may ci tëdd ngay weeru koor ana lu mun a may. bul jàll de bi laylatil xadri nee na laylatul xadri mi nga xam ne mooy borom tëdd ngay booy borom ngeen lii. waaw kay waaw kay génn guddi goo xam ne moo gën dund quatre-vingt-trois ans ak quatre mois ne ñu ngi ko am ci daraji sehru ramadan ya sahra rabbil karim fi ka jaadalana xam nga alxuraan mu ngi wàcc ci guddi laylatul xadar la xaadimu rasul wax ya sahra rabbil fi ka jaadalana alxuraan dafa représenté téeméeri téere ak ñeenti téere la xaadimu rasul wax ya sahra rabbil karim fi ka jaadalana yonent yàlla aadama sunu borom jox ko fukki yonent yàlla si sa doom yi sunu borom jox ko juróom fukki téere yonent yàlla idrisa sunu borom jox ko fanweeri téere ibrahima xalilullah sunu borom jox ko fukki téere muy téeméeri téere ya sahara rabbil karim fi ka jaadalana téeméeri téere yooyu moom lañ dëxañ ci tawret alquran injil ak zabur ak alquran diiwaan mooy umul kitab fii lawhul mahfuz ak fii mubin ya sahara rabbil karim fi ka ñu jële ko ca lawhul mahfuz wàccee ko ci baytil izza mooy asamaani benneel yaa sahra rabbil karimin fii ka jaadalana guddi gëñ ko wàccee moom lañ tuddi guddig laylatul xadar mooy inna anzalnahu fii laylatul xadri bi laylatil xadri saatil fadli warraqadi muy guddi goo xam ne ku jaamu yàlla sunu borom fay ku julli sunu borom fay ku ci jàngal xuraan sunu borom fay ku julli ci yonte bi sunu borom fay inni uhibbuka hubba zaatalabin kon nag nee na guddi googu ni mu toll sunu borom def na sama dund toll na ne laylatul xadar من مالك فيك إسعادا بلا أودي موي نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر هب لي يا وهب الشهر كون أمري كليلة الخضر بليلة الخضر ساد نعم، الفجر والرقد ليلة الخضر نمو تولو تي يو أجري أك سمك دون من شاء الخدم نلا لا تي يالا بليلة الخضر ساد الفجر والرقدي ليلة الخضر موري مو ماغ تبري أي نيل سيرن تبعنا سما بورام دهنا سمك دون من ليلة الخضر بليلة laylatil xadri saatil fajri warraqadi moo tax mu ne xëpp lillazi xaramani xadamani ihsaana jinnan aw masuran aw insaana bi laylatil xadri saatil fajri warraqadi malakan aw masuran aw insaana malaka yi wala lu yàlla suturaal ba kenn xamu ko baa doom aadama ku ma liggéeyal sunu borom fay la bi laylatil xadri saatil fajri warraqadi gëneel yoolu la ame tukkee ci daraji leetul xadar ba neexee nga jàll ni uhibbuka basat bi za talabin kon nag yow weeru koor dama la bëgg rek sa jëmm ji la yàlla màggale laa la bëgg rek min malikin fii ka isaadan bila awadi maa ngi sakku ak texe ci tëdd gay weeru koor man xaadimu rasul sa tawbatin fii ka aydan maadiyan abadan tuubal naa yàlla jëf yi nga xam ne daawoo yoon ci jëfi ndaw tuubal naa ko yàlla bi sigi wa subuhi wal qur'ani li ahadi di sant yàlla tey jàng alquran ngir jëmmi yàlla aji kenn ka ilay xatubtu fii chaabana an rajabin tuubal naa yàlla ci chaaban ak ci weeru rajab door dugg ci ramadan mujaddidan fii ka fasaat lii bi tarki dadi kon nag ma seere ci daraje weeru koor ne bàyyi naa lépp loo xam ne daa ak bàkkaar disat bi axsi kitaaballahi fiika huna seere mii naa nikk ci alquran man xaadimu rasul illa irtihaaliya yawma sabti wal ahadi la tàmbalee ci bis ba may laxas muy gaaw ak dibee ca laa jàppoon ci alquran wasat bi hubbika basati ya amali nan na seere ne ku la bëgg laa man xaadimu rasul wa kun habibiya yawma alhawli wal kamadi sun demee ba yamal xiyaam nga seere yow alquran ne ku la bëggoon laa yow weeru koor la bëggoon laa alqiyaami bilaa ya, weeru koor dama la bëgg rek ngir jëmm yàlla bilaa xisin xisin fa ahlan wa tariban bilaa hadadi nee na du ma tirise du ma moy du ma jeng ci darajey ya weeru koor yàlla rek laa ko seeral inni uhibuka ya sahra siyaami bilaa ya, yow weeru koor daal maa la bëgg man xaadimu rasul xisin fa ahlan wa tarhiban bilaa adadi kon maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay dalal di la tatagal yow weeru koor subhaana rabbika sell na moom sa borom rabbil izzati yàlla mi borom ak tànn ci lépp luñ melal yàlla yàlla du mursalin yàlla na jàmm rek di am walhamdulillahi rabbil alamin ci mboolem yonent ak cant jàll ñeel na yàlla mi bundi bindee fii la zilta dayfan kariman xad yubashiruni kon Cheikh dafa mel ni yaa ngi jàll ci geneen xasida fi sirri wal jahri wal ihsani sa jërëjëf sëñ Cheikh noo ngi ñëw sëñ Ousseynou ndax moom daa am bunt bu Mamour ubbi boo xawante ne foofu moom bu ñu fa duggee moom yaakaar naa ne du gaaw a tëjuwaat waaye waaye sëñ Cheikh Ndiaye xasida li ma yëm mooy mm. maanaam lu tànneefu lu gànjoru lu ne mu ngi si maam Cheikh Ibrahima Fall xoolal duo bu neex bi muritub sëriñ Cheikh Mounda Fall alalu Cheikh Ibrahima maa la wax sol moo ma ko jox yónnee na bataaxal mais maa ngi kontaan moom daa bëgg maam <laughs> Cheikh Mortala yére bii ma sol moo ma ko moom moom xol baa nga sedd guyu de dafa xër ci maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina ma ngi te <laughs> civilisation boobu ngay wax ci sëñ Cheikh Khadim dañ koo niroole waaw mu bëgg lu baax bari lu mu mën a lijjanti ca biir Touba nag te boo ko gisee waxtaanu leen doo ko xam ci moom hmm. te bari na lu fa nit di wut boo ko jaaree ci moom mu yomb lool ndax dafa bari sañ-sañ te surtout Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina la waaye maam Cheikh Ibra Fall ma bëggoon a dégg moo riche noonu fu ma bëggoon a dégg ma déglu la ndax ndax ndax dama ne Cheikh Ibra lu hmm. gànjaru lu ne moo hmm. ngi si biir Cheikh Ibra Fall waaw xoolal ñaari ñi ruyoo bu sell bi ak yar ak teggin beeg xam-xam bu rëy bi te koo ci làmb Cheikh Ibra Fall lay wuyoo waaw <laughs> loolu daal nga jàngatal ma ko Cheikh Ibra daal maam ci ñi gën a riche yàlla mës a tuddee ko Serigne Cheikh Mounda Fall muy wuyoo Fall waaw Baye Moustapha Seck ndigal mi talibib Serigne Cheikh ndigal Fall di wuyoo Fall. waaw xanaa xamoo ne maam Cheikh Ibra Fall. ci ñu a man xam lu ma dugal loolu sëñ uh-huh. maanaam léeg-léeg boo boo nee Baye Fall ñenn ñi foog ak Baye Fall daal man loolu ma yéem lool. ci ñi gën a riis ci ñi yàlla bind Cheikh Ibra ci la bokk. dafa amul mbellit xam nga li ñuy wax mbellit loo xam ne nii dañ koy jël naan lii ci la bokk waaye baaxul nañ ko tege ne Cheikh Ibra Fall amu ko. waaw mm-hmm. léppam dafa set léppam dafa sell. li ko dale ci biir njabootam gi taalibe yi maanaam ku ci bokk ak ku ci bokk ku ciy bokk bokk la nag dafa bokkul mm. waaye Baye Fall dëgg dëgg Baye Fall la ñu sëñ Maodo Aminta waxoon rek te ma koy jamono ju nekk nee na kuñ ne te muy dëgg boo ko xoolee muy dox sañalawaat ne ku amul dara ci mbon a nga ne te ku boole wépp yi wa nga lii mooy Baye Fall xam nga ñu wax feram ko xoolal plateau bi rek waaw ku ku ku boole ci ak mbon seen dara yi jekk yi rek day firndeel rek <laughs> mbir mu sëñ Muntaxa ku ca ne moo ko gënal jëmmi boppam. waaw Baye Fall waaw Baye Fall bu mu mën di doon te dëggal. moo ma gënal sama jëmm. te loolu da la waxoon day sax ba pare xam nga loolu ca wax bu njëkk ba la. ba ñuy teg xeeru héliport ba la ko waxee woon. Mm-hmm. booba suñu seex jëmm ngi toog. mu ngi toog. koral la yëkkati ca jotaay ba cinq cent mill na moo ko joxeel sëriñ sëriñ Siidil ci tàmbali liggéey bi mhm. boobu sëñ boobu dañ doon laaj addiya moom moo ci jiitu waaye ci ñaareel bi nga xam ne sëñ Cheikh Bintu da ko doon jébbal caabi résidence fii moo ko doon liggéeyal ci résidence ke sëñ Tuubaa gi mhm. wax na fa ne fi li yàlla dig julli ñi ci payoor fam yam ak ñoom fa lay tàmbali Cheikh waaw dama koy faral xam nga maam Cheikh Ibra Fall koo gis nii mu mel mhm. nga xam ne yabut yàlla lu toll ne tarafatal ay ni te dafa jël léppam jébbal ko sunu borom démb rek maa ngi koy wax maanaam julli woor natt asaka joxe mu muurum koor aj màkka lépp aw yiw la ndax sunu borom moo ko digle waaye ki ko man te di ko def te yem ca képp jaamu yàlla ak jongama la mm-hmm. maa la ko wax xam nga li jafe liggéey sa alal ba mu lew la bari lew la doom nga sañcee def li ñëpp di def nga muñ li ñëpp di def dem jébbale ko ngir jëmmi yàlla képp loola moo jafe waaw ah, ngir jëmmi yàlla képp Baay Faal yi nag seen jëf yi boo ko gisee parce que boo demee ci ndogu yi ki ñi ci ëpp lu ñu joxe ci àddee kenn du tudd seenu tur te bugguñu ko sax far te teewul du tudduñu seenu tur gërëmuñ leen déwén ñu ëppaat lu ñu joxe kooku jëf ja bu yàlla taxul woon buñ ko gërëmul bu déwénee mu ba ko kon nag mu nàmpatal ak njabootam mooy jëf te yàlla tax ja nga xam ne nii moom la toppe woon Serigne Touba loolu la nàmpatal njaboot gi ba nga xam ne nii ñoom it jëf te yàlla tax jooje rek lañuy ñuy jëf adduna nag dara du fi leere dafa baaxoo werante adduna dafa waxoon ne moom maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muriid addoom ah, kaw suuf bari na coow waaye coow la dëkke coow la ko suñ borom sàkke dara du fi leere waaye biir suuf ku fa dugg dëgg dong di fa dox di nga xam ne maag suñ Bamba dëgg lañ doon waaw ah, kon nag <laughs> tabarkalla sëñ Mamour am na foo bëggoon dugg ak sëñ Ousseynou <laughs> waaw Samba Diarra xanaa am na da wax na dara Cheikh Ibra ah Cheikh Ibra Fall raw na ak maasam tëddee fu ko jot bamba sempi mu raw yaaram binam faal cheikh ibrahima faal raw na ak maasam tëddee fu ko jot bamba sempi mu raw yaaram binam faal inna suyooxa waa saabu siyookumaan ñooy say jaraaf yaa di chef yaaram binaam faal ko def xasi dëkk arab ak wolof xab bu njëkk bi da koy def arab xab bi ci topp mu def ko wolof mhm. te maanaam dara du ci soppiku mhm. xam naa sëñ Moustapha mi bu nu ci gunge dana gën a leer ci noonu la waaw inna suyooxa suyoox mooy sëriñ si wa ashaabu suyooxu maan ak képp ku ma sa ànd ak sëriñ si baa nga am tedd nga ñooy say jaraaf yaa di chef yaaram bi naam faal walaay wax nga dëgg jàllal si mbëkkiina hmm. hum saadaatuna abadan nee na ba mu des Mbàkke ñoom nag ñoom suñuy sang la nooy seen i nga xam ne doo ñoom du yow yaaram bi binaam fa yow da nga leen a bàyyee ak cang gi des ci njaam gi ngir liggéeyal ko sëñ ji jamiu jiilika mboolem ñi nga maaseel ci jamono fii judin wa fii karamin ci tedd nga akuk tab léewoon nañoo ak yow nga daan. yaa bi naam sa léewoo ak yow rek ci ak tabbata da nga yaa ko nërmeel yow Seera Fall. kullu saa diina. mboolem der bu ñuul. wal bii daani maasharim. baa nga am der bu weex ak kum mën a doon. ñoo seede wax lii ci yow. yaaram bi naam faal. ñëpp seera wax lii ma wax ci yow yaaram bi naam faal wuyu naa la. wa baabu baytuka. nee na sa buntu kër yow Cheikh Ibrahima. maftuhun li xaasidi. nee na ku jublu sa buntu kër buntu yi ne ngayat du tëjee. te buy di bég yaaram bi naam ku ñëw ci sa kër dana mos dara baa mu naan dara na yaram bi nam faal in xaalat dayfun nee na gan nag saa bu ñeen ne jaleñ salaamun inda baabika daal di nuyoo ci sa buntu kër yow Cheikh Ibra Fall may yaa di saafonte ak moom nee na bi naam faal nee na may yi nga koy jox ci sa tab day saafonte ak gan gi door a ñëw inna rijaala góor ñëpp ñëpp sidaadul mukrimiina maan nee na ñi gën a tedd ci jamono baa ñu am kattan lamboon na ñoog yow nga ub leen Cheikh Birame Fall na ku ma sa léew yow ci doole ba kattan ba baatin sunu Cheikh Ibrahima Fall yaa ko nërmeel tataawalu kullu léeg-léeg léeg-léeg sax mu ne ñuy yokkamte ku bëgg laa sut li nay li ka kaza ngir bëgg laa jot ci yeel yow Cheikh Ibrahima Fall kenn jotu la ci yeel yaa Birame Fall nee na kenn jotu la ci yeel yow Cheikh Ibrahima xar saaraat ka mooy dëkk nañ la ci bëre arrijaalul aqwiyaa góor ñi am kàttan dëkk nañ la ci bëre bërëb sayit ba bërëb baatin nga dénd leen naka der dëgg leen bi naam faal Cheikh Ibrahima dénd leen niki dar ba jaaxaan ci seen kaw ominatayika bokk na ci say may yow Cheikh Rofal awlaadu damil ya taw nee na doomi damel yi sax ñëw nañu di daw di raam ba fi yow yaaram bi naam fa di daw di raam di dëlëf dëlëf muy doom buur yi ak gërëm yi ak damel yi awlaadu gërëm yi doomi gërëm yi nee na doomi damel yi abidun inda baytika wa ko wedd nag laajal mbaaxaan baa ku ni mel neen dañu mujj doon ay jaam ci kër Cheikh dañoo mujj ñëw doon ay jaam seeni jigéen du sëy si ci biir kër gi ñoom doomi damel yi wa kullu man xadra nee na képp koo xam ne mas naa gis ma xad unil tayakun nee na mu gis lii la yàlla may yow Cheikh Ibra di roy ta xam ne du yow bi binaam fa kooku day mujj di la xam ne moom du yow yow it doo moom Cheikh Ibra Fall yu daanika nee kenn du méngoo ak yow ci sax may amral man amartafahum nee na mbir moo ma sa digle yow Cheikh Ibra Fall walaay daanika nee na kenn du mën a méngoo ak yow fii hasal may gii la yàlla may amul ku méngoo ak yow ci may gi buur yàlla ko may yàlla biram fa góor waaw góor waaw góor nee na yàlla moo ko may yaram bi naam faala wa man yu maari nee na kuy werante nag ala maaxan udil toola Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na kuy werantali ci Cheikh Ibra Fall lii mu am ci yàlla namos mu xam ne du yow yaaram bi naam faal nee na ku yebu namos rek mu xam ne doo moom du yow yow yaaram bi naam faal innal wufaada nee na gan ñi nag jamian waafiqi fii naa taw nee na gan ñi dañ daan ñëw di sukk di dëlëf dëlëf ci buntu Cheikh Ibra Fall di déglu tey sa njigal yaaram bi naam faal gan lu mu tedd tedd bu ñëwee ak dara ñu mën am day déglu ndéglu Cheikh Ibra Fall innal wufaada nee na gan ñi jamian waafiqi laajal Abdoulaye Xay mañ denc ca Njaañ xam na Cheikh Ibra Fall innal mufaada nee na ñooñee gan ñi ku mës a ñëw day déglu ndigalu Cheikh Ibra Fall ba lu ko may rek bu ko mayee du jëriñu ci yàlla di déglu tey sa ndigal yaram bi naam fa gan ak ko jege ñëpp dañ daan déglu ndigalul Cheikh Ibra Fall walaa yu xaalifu walaa yu xaalifu du werante amran man amarta fam ndigal loo ma sa digle kenn du ko werante ñooy jaam yu dul daw du yokkat Cheikh bi naam Fall ñooy ay jaam yu dul daw te du ñu yokkat yaram bi naam Fall dégg wax ji wa anta ajwadu yaa gën a tabe. axraani zamaani man. Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na jamono comme sa xam yaa ci gën a tabe yow Cheikh Ibra lii yaaram bi naam fa. nee na tabuk Cheikh Ibra ko werante Cheikh Manoul Basir wax na ko ci Minanul Baaqil Xadim nee na li may doon doon doon gone. maa ngi fàttaliku man Cheikh sëñ Basiru maa maa ngi jégalu ci waxin wi nee na maa ngi fàttaliku bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi nee na sëf yu rëy yi sama baay Cheikh Ibra daan yónnee maam Cerno ak eh, maam Mor Jaara sunu wéyjur yu rëy yi ay gëléem yu sëf mu daan ko yónnee ab dund ci maam Cerno ak euh, maam Mor Jaara ahlul hawaay ji ahlul borom aajo yi jaau laasimina buka nee na léeg-léeg borom aajo yi dañ daan ñëw di yëkkat ak a jooy yi fi yow ku dellu si day ree cheikh bi naam fa waaye boo génnee ci buntu Cheikh Rafal rek da ngay ree lakkal wilaayatu. Seex Fall daal dëgg-dëgg li am yow rek yaa am wilaaya. bayna naasu zaahiratun. nit ñëpp yaa ci am wilaaya goo xam ne nee na euh, ñëpp xam nañ yaa am wilaaya. sëg wali yoo njëkk a feeñ. yaaram bi naam faal. sëg wali wóor na ñëpp xanaa ku gumba waaye ñëpp xam na ne yaa am wilaaya yow Seex Fall. ahlul balaaxati. ñi am làmmeñ wu sett làmmeñ wu leer. wal ashmaari xaatibatan. ak waykati jamono yëpp yëpp laa wax. masuñu fee wax limal lu ni lii ma la wax yow Cheikh Ibra Fall hum yam donc faqat am na ñoo xam ne dañoo yem ci di la way képp ca lañ yem lakinnahum jayloo waaye ñu bari nag dañoo réere sa mbir yées nañu lii wax yaaram bi naam fa nee na ñoom tuuti lañ mos ci lii ma la wax ma wax wax ja man Cheikh Samba Diarra Mbaye xad jaa zikruka saw tur siiw na fii charqin wa fii xarabin ci penku ak ci sow sa tur wi dem na ba saam yaaram bi naam fa sa tur wi na ba saam daj na kapp kapp adduna xad fuqta haaruna yaa ko raw ci ak tab juddit wa fii këramin tedd ga akuk tab yaa ci raw Haruna Haruna buur la woon sa maas gi tey yaa ci sut yaram bi naam sa maas gi amul kenn koo am denn yow Cheikh Ibra law yam don chonra nee na bu gaa yi nag amee ku ñuy way di leen way ñoom kullul kiraami man baa ñuy way gaa yi tëddi nañ ca féete ñoom ma way la man yaa ma saf man man ma way la yaa ma man Cheikh Ibra Fall yaram bi barki seigne Touba wallahi ndeysaan duguna na aljanna sunu borom mon ko aljanna ak urul ayni mu xam la fa xew ci wat mo way li cheikh rofal kero bi mu ne seigne Touba ci fukki barab ak ben yu tidlu yu raglu yi monu indi ci yow mon mm. taxa joxe sun bop ci def len ni man dama ni man ka bamba ma ngi man fukki barab ma tek ca ben fuñu fa tollu ma la gem ci tambale ca bakkan budé taggo di wacc hmm ba de gi jeex fukki barab ak benn yi mat sëriñ bi wan ko ne hmm. li ma leen dig ëllëg lijjanti wu ko booba alastu bi rabbikum laa ko lijjanti woon wan ko këruk àjjanaam fii wan ko soxna soxnay ëllëgam wàcce leen fii ci tefesu Ndar gii hmm. déggal loolu <laughs> mu jàkkaar look ñoom Cheikh Moustapha Seydou ne ma ñoom xamuñu jëm mu ruux lan xam hmm. bi nu gisee moom xamuñu ko xamu leen mu laaj leen yeneen ñan ñu ko urul ay ni ñu fi yabal di ñu teerloo suñu sang bu ñuy wax Mouhamadou Abdoul Karim Samba Diarra mu ne daal ñibbi këram ne ku sedduwul seddu naa ku fadul fàddu na takki bagasam daal di wane wax ko def leen ni man dama ni man la ka bamba ma ngi man fukki barab ma tek ci benn fuñu fa tol ma le gem nisan bakkan bu de tago di wat hmm. safara den ak i soppe bi yow lañu falaat yalla ak sa barke ma le gem hmm. buru di xar le badal malaakaati di bégal mm-hmm. sëñ Bamba yow la nu àndal yàlla ak sa lëgëm mm-hmm. buru rocci banaaw jëma samaaw wane gannaaw sëñ Bamba yow la ñu faaw yàlla ak sa barke lëgëm bu ñu ñoree yaram di rob ruumaan ne jees dinu durab mm. sëñ bamba yow lañu ñu fa ngëp yàlla ak sabarke ma lëgëm mm. bu ñaari gaa yi ne jalañ mm. di laa ci neex nga ni jarañ hmm. bigal nu mbég moom dootu deñ yàlla ak sa barke ma la gëm hmm. keroog bu ñu dekkee ba xëy hmm. ci àndandoo di wéy keroog a tax nga nu tey yàlla ak sa barke la gëm keroog ñuy taxaw te kenn du faris tànkam te kenn du nga lu dul lu mu nekkul yàlla ak sa barke ma la gëm keroog bu téere yi rot ci diggante yaari wet yi mel ni tan dal te kenn du réere benn yàlla ak sa barke ma la gëm borom Touba keroog bu ñuy tëral man da xeñe seen ñi wowat ñu gañe ñee ñu gañe ñu ñee fañe yàlla ak sa barke ba fay sampe ta mooy siraat ku jéggi mbir nooy fa moom te dootu nooy yàlla ak sa barke la gëm borom Touba keroog mbooloo mi ne ràcc di seddaloo def ñaari pàcc bisab keroog borom Touba yal na la daj yàlla ak sa barke ma la gëm nu daagu jëm daaru di xëy di joxanteey salaam fu ne nu dee aley salaam yàlla ak sa barke ma la gëm soppe bi yii fas ba ñëw yaakaar ci yàlla ak ci yow texe gu sax du deñ ba faw yàlla ak sa barke ma la maa ngi taxaw fi sa gannaaw jublu wan ñeneen gannaaw foo mën a jëm yóbbu ma gaaw ya Allah sabar barke ma la gëm foofu la ko bi wan ko le mu ku seddul man sedduna ya oh. ku faddul man fadduna ba mat lu wessuna dana coba, yàlla ak sa barke takki bagaasam yëpp ñibbi àjjana keroog bi ko serigne touba mag ñi ko ko won wax ngir xam ci bam samba ñukoy liar rek nañu yalla ci samba Jaara diko wax ji tankale mu waw mom day ñi ko doon jël ci fi la ñu jaar ci man ba am digël du ko jëli fii la ñu jaar ba am digël du ko jëli mais tekk mu leen mom dama ko duy ba mu fess ma rokkas ko mu tepp dama ko duy ba mu fess ma rokkas ko mu tepp nek mom lay junj ci bir naan tibub cofeelam moom sëñ Tuubaa dafa fess fi man di fokki ak a ci sama xol ba dootu rees te ab tip mom bu resatul rek ray boroom wan na ma boppam na mu doy. sëñ Tuubaa xajul ci doomu aadama. booba la daal di. Mm-hmm. xam ne li ko sëriñ bi may xajatul ci moom. Mm-hmm. sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam dama ko duy moom ba mu fees ma rokkas ko mu tépp. Mm-hmm. moo tax keroog ba sëñ Tuubaa ne raabat maqaami an si karim. sama maqaami ku dul yàlla fàddu na la. mu ne faslun fii maqaamihi moom Samba Diarra. lazi huwa maqaamu ismul jalaalati wa maqaamihi bayna al awliyaai ka maqaami ismi al azam bayna al asma ilahi taala bi barakaatihi ne ko maqaama ismu jalaal mooy sa maqaam ñu dul yow ñoo di asmaaw luy réew yee ko gànnaar asmaaw mooy mooy ismul jalaal bi te yaay moom mmh. bir na gànnaar sëñ Tuubaa nangu suñu fa mmh. mmh. waaw kéemaan la mbir la xam nga li yéeme mooy da gis trio boobu Cheikh Samba Diarra Mbaye sëriñ bu mag bi Cheikh Ibra Fall oh. ki xam lii lépp te sut ci wàllu yi mhm. dem àjjana dellu si wax lii dégg nga te wayoon na dama tabbi ci ab dun nga xam ne suñ borom wan na ko urul ay nii wan ko ni ñu mel mu tabbi ca ñoom gis seen melo ya dellu si nu xibaar nañu mel mu bàyyi fii ñëpp tagg Cheikh Ibra Fall oh. dégg nga loolu dama tabbi ab dun bu yi. ah oh. biddiw dañoo rang raxoo kay ba dar. Mhm. dama tabbi ab dun bu yi dañoo rang raxoo kay ba dar. ci te taaxam ya muy safiram. Mhm. xobbeem yaay nuroog niir yu rang bañ ma mhm. ma gis dun ba far fa ay at yu mat. guddeem ba bëccëg neex ba mel ni tutur. foofa neex na bu tàppar kayay dal ci seen ndodd di sër. ay nii. mu mel ni gorong mbaay tama mbaa sabar. ku xam lii xamul woon sa mawtur la xam. ku xam lii xamul woon sama tur la xam ku xam lii xamul woon na xam ñetti tur ñu ne lii leen ko woowe àjjana Muhammadu Abdul Karim Samba Diarra hmm. ne siiw na ci réew mi te siiw taaxi Ndar waaw loolu sëñ Tuubaa ko dundloo moom li mu nu moom sëñ Tuubaa da ko dundloo moom dund ko moom dégg nga loolu waaw am fa sëñ Tuubaa lambatuwut de ah. te lii mu wax da koo dund dem mm. aljanna dund xam la fa ne dellu si xibaar la fa ne mm-hmm. bàyyi fi ñëpp wéeru ji ci Cheikh Ibra Fall la kenn xamul waaw laaj na laaj bu am solo sëñ Tuubaa moom ah, koy ziar baax di ñaan yàlla mu yàgg fi tey la màggalu suñ soxew bi sëñ bu sama di ziar mboolem njaboot ak waxtaane sëñ Tuubaa lim doon moom moom moo ma traversé lim doon waaw jotaay bi day amaat de ah kañ mënut a ñàkk bii day amaat de mënut a bii day amaat c'est promis ñoo ñoo ngi ziar bu baax a baax day saak sëñ sëñ sëñ sëñ Mamour sëñ Mourid Niang sëriñ Serigne Saliou ndeysaan fi mu ne nii moom moom it mu ngi mu ngi nos ci jotaay bi lool ma njaay ma njaay Baye Fall moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla sëñ Mourid Niang bu leen talibé Serigne Saliou waaw nu ngi koy jeex bu baax baax mohammed Diallo waaw moom it mu ngi bay serigne mohammed Diallo yaa faama jaxate waaw ñom nit ñi ngi ak ñom Modou Fall Mbaw ñom ñepp ñi ngi topp jotaay bi gaay nga and ak ñun bu baax waaw baax a baax ndeysaan yaa faama jaxate fi dimanche waxtaan yu toll moom yaa faama jaxate ya la yaa faama jaxate Atlanta mohammed ndaysan mu ngi yeglu di diko jeex bu baax baax waaw mboolem mbokk yi fi mu bi sëñ Cheikh Ndiaye nga ne yow bi day amaat. day amaat waaw. doon na doon gaaw. day amaat ndax waay waay dama ne. na loo ko doon nettali ci Cheikh Samba Diarra loo xam ne moom Cheikh Samba Diarra Mbaye moom moom. waaw sëñ Mamadou mooy mhm. njort naa ni. Mhm. sëriñ bi woo sëñ Youssou Diop ci Hizbut Tarqiyyah. Mhm. ne ko sëñ Seynou Gueye mii. liggéeyu sëñ Tuubaa bii. bu ñu dencoon ci mooma. dama bëgg télé Sëriñ Tuubaa boobu mu di fi ñëw. Mhm. di fi jàng njàng mi te di ko fi jàngale. loolu ma ko nettali keroog. ñortu naa ni loolu laa bëgg nga nettali waat bokk na ci li ko sabab. ndax moom xam nga Sëriñ Tuubaa da ko ñor lool ak jàngale Sëriñ Tuubaa xam nga Sëriñ Tuubaa dafa bari koo xam ne. Mhm. Euh, da koy weddi te umpale ko doo nga tax. Mhm. ba ko Samba Jaara di layal da ko ne yaaram bi kenn bañu la. waaw cest à rek nag xam yi ñoo la xam. ñi xamul noo sànku waaye donte xamoon nan la njëkkante fi yow yaaram bi kenn bañu la. dal la ca gànnaar la toog li sama borom yàgg nattoo nit ñu baax ñëpp kër gi mu ne moom sëriñ bi jafe lool dépense amu fi mag ñi ñëw jàmbat ko ko mu ne leen dem leen ci buti gu naar bii ngeen jàkkaarloon ngeen leb fa dundub tey kon leb yàgg na ci yoon bi waaw ngeen leb fa dundub tey ah, waaw leb yàgg na ci yoon bi ah, kon baax keroog bi eh, taalibe yi demee ci naar bi ne ko sëriñ bee bëgg dund tey rek naar bi ne leen bu ngeen demee ngeen sëriñ bi sama boutique bii ba ma koy ibbi ñaar yi dara taxu ci mooy leble ak maye dara taxu ci ñu ñëw wax ko sëriñ bi sëriñ bi ne baax na dégg na ko passage ñetti ñetti safi giléem dikkal sëriñ bi giléem bu tukkal gu mat li mu doon sëfub dund ba fees dell dikkal sëriñ bi àddee fi rek mhm. sëriñ bi ne mag ñi jël leen ci dundu tey bi ngeen soxla woon ba bëggoon koo lebi naar bi te ñetti giléem yi ak lanu nu sëf lépp ngeen dem joxal ma ko ko addi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam biñ demee ne naar bi lii de yaa ko moom mu ne lii nag mu leen sëriñ ñu ne ko sëriñ bi la fi doon lépp léegi ab dépense moo la ko jox addi rasulillahi ci yoor yoor bi naar bi jàpp gémmiñam xam ne moom lim leble ak lin ko fay wute na lool waaw fasaasi waxtu tàkkusaan juróom ñetti sa fi dikkalaat sëriñ bi ndax addi yi dañ daan rombante sëriñ bi yéeram taalibe yi ci ñàkk a mos mu ne jël leen benn gileem bi ngeen rëx ko jariñoo te juróom ak leenu ngeen dem joxaatal ma ko naar bi addee rasulillahi fasaasi fukki gileem yu mag sëkk ak sëfub dund ba fees dell daje ci kër naar bi naar bi ne lii nag ñu ne ko kilo fi doon lépp si léegi ab dund rek nee na addi rasulillahi naar bi jàpp gimiñam soxna si naar bi ne ko dégg nga kii de xawma ku mu doon waaye du nit waaw <laughs> ah, kii du nit de nitu yàlla la de hmm. kii moom bee bu nu boole suñu bopp ak lim na doon leb ak lim fi indi lépp dem jox ko ko <laughs> nga xam ne fii yoor yoor bi bi mi ngi leen di lépp dund ci tàkkusaan bi moom ñoom jëbbul si nan waaw jikko yu tedd yu sell yooyu nga xam ne moom la sëñ Tuubaa moome jamono moomewul nit ñi maa leen di moom mhm. moom ay jikko yu tedd yu sell yoo xam ne la ko maam Samba wax te rasulaay la réere woon sak feeñ fi la jikko yi delsee mhm. jikko rasulaay yooyu di makaarimul axlaaq yooyu la wan àdduna ba ñëpp takkutoo ne ko yaanuy moom sëñ Muntaxa ne ma lii adduna bépp laa bëgg nu xam mooy lan lii muy wax sëñ Tuubaa ah. te moom waxam ñi àgg ci yàlla rek man ko xam daa bëgg nga di ci dimbali taalibe murit yi waaye histoire boobu ak naaram yooyu ca ca gànnaar ndax xam nga gànnaar bin ko fa yóbbu sabab bi moo nekkoon giim loo ko ñoom ban ko yóbbu gànnaar xam na ni ki mënuñ ko dara mm-hmm. noonu leen ko yóbbu gànnaar bu demee gànnaar dootu gis Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Ibra Sarr ak Cheikh Ibra Faati gaa yi <laughs> kenn dootu gis ku koy sukkale karaama la ko tarbiyewu mm-hmm. ndax naar yi mos noo fonk der bu ñuul mm-hmm. mag dañ leen a mas a xeeb naka waaw der bu mom mom dafa mas a xeeb der bu ñul mhm. jamono boba xam xamit ku mas a jàng ba jeexil da nga nan may dem gannar jangi. Ah. di suuf ci yag bëri ay wàllu ñu ne kon nan ku fa yóbbu làkku arab bi muy jaay ñe dañ ko namp ah. duñ ko mu ne cheikh dem na Congo ba mo luñ ko dara ñom tuba bi mu dem seti gannar mm-hmm. nañ leen ko sargal yi terna wacc gannar lool moy sabab ñu ko gannar fexe ba euh, kendo dootu kendo dootu ko tek fenn. Mm-hmm. ndeke mom nena fepp da mok mokk rek deson mu war leen a mokkali waaw gana dafa mokkoon gànnaar rek des mor war leen a ci gànnaar it lako ko joxogn ko ne ko mom Samba jaar xamna ci say non jurom ñaar yoy dana ko ba gañi xam ko bu baax ak naari gànnaar yi ahda fait waxoon turan mm-hmm. maam Samba ñëw ne ko xam naa ci sa noon yi nag juróom-ñaar yoo xam ne tey jii laa koy lim mm-hmm. ci kanamu naar yi la wër mm-hmm. sëriñ bi ne tekk bàyyi lim doon def lépp néeg bi fees dell ñëpp ne tirim engagement bu rëy bi maam Samba wax noonu sëñ Tuubaa yim ne xam na ci juróom-ñaar te dana ko lim mu jox xar bi waat ko seytaane duniyaa bakkan banneex ak alal ju doon serigne bi rek gaay yo yoy kit nga ak ñom ba serigne bi ne ko yu kit da ci da dugal baati tubab leg leg waaw mu ne ko nga jaar penku ñu jaar sow ñi ma fi dim serigne bi ne beurep juk ne may bi nga ma fekk wax ma wax ji ak li ci bir néeg bi waaw bu fekkone ne giim loko ko ko taxaw nu yóbbu gànnaar ndekete fala tal fala fala tal bi jolle nak mom waaw farataal bi jolle waaw seytaane dunya bakkan hmm. banex hmm. ak alal jumu don nak xetu hmm. alal bu meuna don reg ak nelaw ci yalla yooyu kit nga ak ñom baganar ah nelaw de mum doy na waar waaw kéemaan la yooyu xam nga ne ku dul seigne Tuubaa mosoo ci mën ci seigne la ne nelaw bi di gannaaw seigne Tuubaa ko xam ah mu ngoog ci yàlla mu ngoog jërëjëf moom daal li faaw dañ koy defar rek maa ngi ñëw yow moom xam naa ni tàggoo gi moom yaa ak sëñ Cheikh yéen a koy tëj sëñ Cheikh Ndiaye xasida <laughs> waaw man de sëñ Aline Badara boo xoolee dama <laughs> waaye nag di la sant bu baax si si si bernde yeeg café yeeg toirkalla rek sëñ Mamour moom ay bañ a dugub la fi indi toirkalla waaw moom daal ba gaaw ak jàmm rek incha allahu rabbi ndax mu ngi ci yoof suñ Muxtar Ngom nee na santal ma ki tax ñu xam dara ci Seex Sàmba Jaara Mbay waaw waaw moom ak ku ñor sëñ Abdoulaye Jabaay moom fi mu toll moo nga ca cëy cëy moom itam di la bàyyi xel ak ku ñu wax suñ Bay di Géey di taalibi sëñ Mourou Ablaye sëñ Fàllu bàyyi sëriñam sax waaw ñoom it ñu ngi jottali seenu cant ci jataay bi waaw. waaw sëñ Cheikh. incha boo ma xoolee ni ma toogee sax nga xam damaa sonn damaa ñëw pour déglu si. déglu bi dafa neex lool wax ji neex sëñ seenu Guèye mi hmm. yàlla dogal man dama koy bëggee di ko déglu jamono ju nekk am na benn jës bu bu mu jamoo ak ak sëriñ Abdoulaye Diop Bisri jës bu bu doy waaru doy waar boo xam ne man dama koy déglu di ko dégluwaat sama soxna aji daaro <laughs> noonu la xëree ci moom ay téléphone ay sonoreem ay estateem yëpp moom la koy def tubaarkàlla euh, mu doon ko xam ne ni sànq yóbbu na fu sori tubaarkàlla waaye nag mbir mee demee noonu am coono laa yëg signal Badara ma ñemewu ma woon a ñàkk a ndax euh, bëggoon ngeen mos as café waaye ba gaaw ak jàmm allah <laughs> daal jëm gaaw <laughs> da ko sànq sànq si jaan ma dëggee moom dama am gan ma ne ko waaw wane ngeen ne da nga am gan de tubaarkàlla mu mu ngi mu ngi bëgg loolu moom it ndeysaan si njàng bi day kii moom waaw <laughs> eh, eh, sëñ Moussa waaw tubaarkàlla nga ne bi dana amaat. xam nga damaa sant yàlla bu baax. Mm-hmm. ci jataay bii alhamdulilah ndax yéen dama leen a yàgg wax ni leen Jazboul Mouride taxawaay bi ngeen ci am ak sëñ Seex Njaay mii ay ati at muy demee nii mhm. ba jon yàlla yi tey mhm. ba àdduna bépp jariñu ci Seex Ibra Fall ñi xamutoon sax gindi ko mhm. ma sant yàlla bu baax ci boole gi ma boole kii. Cheikh Mounda Gueye ak ay jàmbaar. waaw muy murit di saadix. Ah, wallaay dib taalibe. xol bu set te yaru lool. Ah, nga xam ni moom jëmmam day jàngale. dëgg la. Mhm. te njàngum xasidaam ku bëgguloon sëriñ bi sax dana roof ci yow bëgg sëriñ bi. jàmbaar la. kon moom am na kilifa. waaw ci moom laa jëm. nga xam ni ak cant la. Eh, wahdi di bi shiba no fut yaanaa jooju Sëñ Tuubaa ñaanon mhm. gindil ci man ñi bejaaw ak gone yi tey ñi fi ne kenn amugo ci juroom benn kon da melni jeunesse bi le Sëñ Tuubaa tàggat leen jëmi ci yalla kon ki di jang ba jang ci kanam sey muntaha sey musa saliw ñomit ñi diko bege ko mhm. la ko talibé yi bege ak ñi bëgg lu baax mhm. kon ñi ngi ñaan sun borom tel ñu kóllëre gi Mm-hmm. ndax ca gannaaw signal yu Badara mii waxoon na ma ni war nañoo amub jataay ndeke mu ngi doon nekk ba ci sihru waa waajoon nañ ko fi sëñ Mamour <laughs> waaw maam moom mii ñoo mujj def émission ba keroog waaw maa ngi koy fàttaliku ci moom koy la ko tënk sax mooy daa daa amoon mbokk mu wàcc waaw mbokk mu wàcc liggéey moo waral mujjutoon ah dëgg la moo tax mu gaaw bi ay keroog seetu nañ la lool <laughs> netteelu gaaw bi ñu jëm ah. waaw guddig ñaar fukkeelu fan la ndax fukki fan ak juróom-ñeent la bët sedd ñaar fukk léegi daal kooku guddi gañ nangu la Cheikh Ibrahima waaw kooku daal xam nga ñuy def sëñ Mawar mm-hmm. moom fanaan lay doon incha allah incha allah <laughs> incha allah kooku moom ba ba saatu xeeru mi leen naw mi rek incha allah sëñ Moussa wooye la kon bëgg naa lool waaw ah dé déggoo kii bi kii maam technicien bi nee na boobaa nag dañuy reer Eh, bii di ñëw sax dañuy reer noppil sëñ Cheikh Diallo si bii di ñëw sax dañuy reer <laughs> bii di ñëw <laughs> <laughs> ba pare da lekk bañ a dugg maa la ko waaw kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di bëgg lool ci jataay bi ndax ndami sëriñ bi mooy ndaw ñii nga xam ni toll ci jeunesse ngone mm-hmm. te téere yi sax ñenn ñi nee nañ sabiyan sabiyan wala kaana nabiyan te yonent yi sax jaar nañ ci ak ndaw sëriñ bi moom ndox suñu diggante akuk ndaw alhamdulilah murit boo ci gis moom laxasaayam day mel ni màggat baa mag moo xam ni daa dëkk mal yàlla mm-hmm. ngir pas-pas bu dëgër jëm ci yàlla kon ndokk noonu royunu kenn gis nga sëriñ Touba. Mm-hmm. dafa original mm-hmm. sëriñ Touba maanaam bu ñuy seet ab julit bu wolofee te yam ci ay cosaanam mooy sëriñ bi sëriñ bi royul kenn. royul bi lim indi ci la yar njabootam. Mm-hmm. hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi yaa lii bi zikri maa salaati wa bil madhi. nga mm-hmm. ne sunu boroom jin na sama njaboot ci ñett yii muy tawhiid ak fiq ak sama tasawuf nee na sama ñooñ ci man lañ ko royee. Mm-hmm. loolu sëñ Moustapha mooy li sëñ Baye Diakhaté naan sang bu dafay wutu yiw yow wutulaw yiw da di aw yiw dëgg la nee na sëñ Tuubaa mooy yiw bi moom la ñuy wut si sang da daa baax te yam ci ak mbaax yow nag dangaa baax ba far di ak mbaax hmm. day dëggal li nga wax kon <laughs> maa ngi bëgg lool Alioune Badara hmm. ci jataay bi hmm. ndax lii mooy ndamul sëriñ bi waaw damay wax ni sëriñ bi ndamam boo bëggee xam kilifa nam toll xoolal ci ñam jiite sëriñ bi nag ñoñom mooy lii baax yaru nangoo liggéey loo am dawal ci toolu yàlla bi kenn du la ñee ah, noonu danoo royul kenn wallaahi danoo xoolul kenn ñun mm-hmm. genn bëgg la ñu am mooy sëriñ bi sëñ bi ci la xëy ci la ñuy gont kon nu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel liggéey bi cosaan li day dellu ci gis bul murit képp tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi te sëñ Cheikh Fall nee na àdduna ñetti fan dong la mhm. démb ak tey ak ëllëg daan ne euh, li nga am tey démb moo la ko may waaye looy am ëllëg it tey la koy may maa la wax jàpp nga bunt bu ñu yemoon jazbul murid ah kay day woy insha allah sëñ Mamour insha allah <laughs> kon ñu ngi lay jaajëfal Alioune Badara di la ndokkeel di ndokkeel wëlëre yi di leen sant bu baax si disponibilité bi ak ah, xam ne sax seen liggéey la loolu moom jotul sax ñu si sori sëñ Mamadou waaw ñoom ñoo ñoo ñoom moom jotaay bi ñoom di sëñ Mamadou di siyaar bu baax a baax ndeysaan sëñ sëñ Mbaye Ndiaye mm-hmm. sëñ Mbaye Ndiaye menn waaye yuru uh, parent d'élève daara Nellu Maram di siyaar bu baax sëñ Xaadim Kase di leen siyaar bu baax a baax am mboolem daara ja di ziar bu baax a baax soxna maam Faati Gueye caati làmp moom xam ngeen si jotaay bi la bokk yaa faama jaxate ah. ñu ngi koy ziar bu baax a baax si Atlanta eh, waaw di ziar bu baax a baax eh, waaw ñoom ñoom si seen xaadim si la di leen ziar wër a wër ndeysaan waaw ah, di di di siyaar suñ ma Ndiaye Baye faal moom bëggoon na sax teewee jotaay bi waaye xam naa ni mu mujj xat lool sëñ professeur Dame seen di sa Touba ñu ngi koy siyaar ak sëñ Dame Sène men mu mu borom màggal gi ah, <laughs> ñu ngi koy siyaar bu baax a baax sëñ Moussa Diaw Lamp Fall sëñ Moussa Diaw moom it nga mm. xam ngeen ni cant annuel yi muy def di sargal weeru koor ak daara alxuraan si bernda ak xasida incha allah di ko waajal vendredi 22 mars euh, ca euh, bu 17 heures jotee kon di si woo ñëpp rek Euh, sëñ Massamba borom kurus gi moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax ca Touba. Mm-hmm. ak mboolem mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel jotaay bi sëñ Fallou Samb. Ah. moom sëñ Cheikh Ngounda ñu ngi koy ziar bu ah, baax a baax moom it wax dëgg yàlla. mboolem mbokk yi bàyyi jotaay xel jotaay bi rek sëñ Mamour. yow moom tey tey tey moom da ngaa da ngaa teg ataay ci wet gi rek. di noos waaw waaw di faral moom man tey moom gars yi di mayu fu sori. maa la de. waaye di sant bu baax. Mm-hmm. Eh, di ziaré wat bu baax a baax sëriñam di fal Modou Mbenda ñaan sa borom doolu ko fa yagal bu baax te doolu ko wër ba liggéey bi nga xamné ne lay liggéeyal mam Cheikh ibrahim Fall mu am ci ay ndam ndam ndam waaw di santat bu baax nak mbolam jabatu mam Cheikh ibrahim Fall gep santat talibé ak mbolam soppé yi ci song nga xamné song nañ ko liggéey koor gi te eh, kenn ko nañ di ñeñu xaré mhm. te yaakaar naa ni jakku nañ ko nak ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci dajeek ay ngërëm ak i tawfeex di doollee ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne du Khadir ñaan suñu borom doolu ko fa yàggal baax te doolu ko wér nga xam ne saa su nekk rek mu njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi dañuy yëg bu wér ci ne moom daf ñoo daf moom moom daf ñuy sotle daal mu ne daf ñuy sotle nag mooy koo xam ne Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ne gémmiñ gu yàlla xar bëgg mooy wax laa ilaha illallah rek tax na yàlla xar ko mhm. waaye sama gémmiñ li taxoon yàlla xar ko mooy sëñ bamba lu ma leen liggéeyal sëñ bamba sa liggéey ngoog mhm. te saa boo ko séenee ci kër la ñuy indil mbaa ngërëm moom ma ko cay sotle bu baax mhm. kon Cheikh Mouhamadou Bachir yàlla na ko fi suñu borom doon la yàggal di ziar bu baax njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim gépp tey jii di màggalu Serigne Chouaïb bu ñu fani koor Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Chouaïb bu mi nga xam ne moom saa su ne <laughs> sunu ndabul ndogu saa buñ ko yanoo ci kër sëñ Amdi Fall Mourou mbenn ci kanamam lañ koy wàcce te ci siyaar baax sëriñ Mbay Ndaw sama xalifa ak sëñ Cheikh Baye Góor Ndaw ñoom ñëpp te siyaar sëñ Abdou Samad moom sëriñ Soyibu ak njaboot gi yëpp soxna Bali nga xam ne moom mooy sunu bàjjen ñaan sama borom doole ko fa yàggal bu baax di siyaar waa daayira Jazbul Murid nag xam ngeen ne eh, le 20 avril incha allah ñu ngi fas yéene eh, def journée culturelle maam Cheikh Ibrahima Fall daaw defoon nañ ko gannaaw koor mooy bu ko retee ba noppi rek biir pencum Cheikh Ibra Fall mi ci janatu ñu ngi koy waajalaat bu baax a baax ñu tudde ko nag ren boroom daarul Muxti demoon nañ ci Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang ba waxtaan ceeg moom ba am ci ndigal waaye dara jaale ko sëñ Modou Mbodj mi nga xam ne ca mag ña la Cheikh Ibra nee na yoon su doonu kaamilu bu lajee këram lañ koy lijjantee <laughs> te nee saa bu ñëwee sama kër ba dem dana danaa bég njaboot gi bég dana fi bàyyi dépense bu weer <laughs> moo njëkk a jox Cheikh Ibra daamar goo xamante ne bii eh, maanaam eh, da koo jënd jox ko moom Cheikh Ibrahima Fall addiye sëñ Baara Mbodj firnde la mooy caat ma yàlla na ko fi sama borom yàggal mm. kon njabootu sëñ Modou Mbodj gépp ñu ngi waajal loola ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ba di ziar sëñ Modou Fall moo sëñ Abdou Yacine ñaan sama borom defal ko tawfeex ñaar mm. tudd na ko léegi ndax sëñ Moustapha Seck wax na ko ñeenti fani koor yi ñu génn di di démb ci la Cheikh Ibrahima ñëwoon Mbàkke Kajoor mm. waaye ñëwul ci bis ba ca saasa sëñ bi nangul ko njëbal saasa ndax loolu moom daa gaaw ndax lam wax señ bi itam ku ne xam na ne dama bëgg yegg ci yàlla léegi la buur yu nopp waaye ko ko njëkk wax waxul wax ju ndaw señ bi nag may na yidd tuuti di ko ba ko nag kon nangul naa la ko ci ñaar fukki fan yooyee ñaar fukki fan yooyee nag sëriñ fallu Fall Cheikh mu sëñ Cheikh Fall Khady mi ngi koy taxawu ca Kaolack ci jàmbaar lool ànd ko sëriñ Moustapha Cheikh mu sëñ Cheikh Fall Khady muy ni ndog yi di ko jiite ñaar fani koor kon ñu ngi koy fàttali murid yëpp Kaolack te nag àdduna bi yëpp di taxaw ndax boo demee ca Italie ñoom tam ñoo ngi koy waajal bu baax a baax waa fédération maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Saliou Ndiaye jiite ko defe naa su ma juum Pescara sax lañu ñu wax ne ren fa lañ koy defee waa France ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñoom sëñ Moudou Fall ke bi Djibril Bal ñoom ñëpp waa Suisse ñu ngi koy waajal ca Basel te ñoom sëñ Yaaram Diop kon àdduna bépp ñu ngi koy waajal ngir fas yéene fàttaliku bis boobu nga xam ne sëñ Modou Minta Fall neewoon na bañ nangulee Cheikh Ibra Fall lañ nangul ñëpp bu nangul nangul kenn kon yàlla nañu nangul ci bis boobee ci barke barke Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfati Serigne Mamour Ndaw Baye Fall <laughs> eh, Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moom it eh, Touba Paris tàmbali na kon ndogu yi àjjuma bu jot foofee di ko yóbbu si kër Serigne Touba yi di ko ziar bu baax a baax di ñaan sunu borom defal ko tawfeex eh, Serigne Cheikh Mbacke Mbow mu borom Mbawor ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom it di ziar bu baax mbokk yi nga xamante ne nag ñoom ñëpp noo ngi teewlu jotaay bi sëriñ Modou Ngom eh, nekk fii si port bu Dakar ñu koy xam naa ni kon eh, sëñu Seynou eh, sëñ Cheikh Mounda xam naa loo leen di loo leen rek tàggoo gudul tàggoo ndax jotaay bi moom sëñ Moussa Seck nee faaw day amaat kon moom incha allahu rabbi day amaat su ko defee kàddu yoo leen tàggoo ñaari bëyit rek ñu yëkkatee ko jotaay bi di sant bu baax mboole mbokk yi nga xamante ne rek sëñ Cheikh mbokk mi la gunge ak mbokk mi mm, gunge sëñu Seynou voilà mu ngoog waaw moom de xanaa tàggoo bi moom mooy di santaat bu baax rek. wala jotawaat daje rek. di siyaare waa di di ah. siyaare waa Thiès gépp nag. rawatina bërëb yi nga xam ni ña ngi fay dundal koor gi. Mm-hmm. bu ñu waxee loolu dinañ suñu xel dina dem kër sëñ Salihu Touré. di siyaare jëwriñam defe ne sëñ Cheikh Touré jiite Fulkuba. di siyaare bàjjan ci wàllu soxna yi nga xam moo leen jiite. di siyaare sëñ Xaayim Lo Gaydeel moom it. ak njabootam yëpp ña ngi koy taxawal foofu sëñ Assane Kane. pincu maam Cheikh Ibrahima Fall daayira mañ moo nooree ni. sëñ Xaadim Fall ñaa nga fa di ko dundal kon daal ñoom it ñu ngi leen di siyaar di siyaar mbokki cees yëpp di ñaan suñu boroom defal na taw feex ba samedi jii di ñëw bu ko defee dina gën a yaatu di santaat ci jataay bu baax yéen ñu ko bokkaloon rek jërëjëf ah, sëñ Moustapha waaw di sant nu waajalaat ci ah. gaaw rek kon di di waajalaat beneen gaaw rek incha allah rek gaaw rek incha ah, allah sëñ yow moom xam naa ne <laughs> kenn doyalut kon kon xana kon dang koy jébal taggo gi rek wa mom la koy jébal mom ngoog mu di siyaar ak soxna taggo ak lo yëkkee rek soxna Fatma ca kër ga wa soxna Fatma waaw waaw mom it mi ngi mi ngi top jotaay bi fi ne léegi fuñ dugg rek mom <laughs> ndax dara du karaw dara du karaw wa la li de moom moom xam naa ne moom ñu ngi koy jaamu bax bax lool ndeysaan te mën a joxe ñun jërëjëf wa señu Ousseynou sant nañ baax xol yëpp sedd na ma sha allah jërëjëf jërëjëf yalla na sëriñ bi nangul liggéey bi sëñ Cheikh Mbacke mbaw mi lool lay wax neena ñu nuyu la bu baaxa baax ndax nak yow rek lay wettali ko ndeysaan waaw siyaara di siyaare tam jëwrin waaw sëñ Alioune Thioune sëñ Alioune Thioune waaw moom moom koy siyaar bëgg lu baax lool bëgg lu baax waaye di siyaare wëllëree mu baax ñu wax sëñ Abdou Seck sëñ Abdou jiite kuréelu matoon na biir mun taxaa fa ñuy def nañ fi jataay <laughs> dafa yónnee bataaxal moom it boobu ba léegi ni mi ngi ànd ak ñun jataay bi am lu ñuy waajal sax waaw di am lu ñuy waajal ngi dégg boobu ba léegi plateau yi a a wax télé bi yëpp a ngi lay siyaar <laughs> waaw koy yaaram ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha kon mm. yàlla sama borom gën koo loolee sàmm mm. yàggal ko wéral ko mm. su ko defee mboolem lislaam bi dugg ci biiram ndax waxtu wee dem moo tax siyaare waa Louga gépp fee ma bàyyi koo eh, Cheikh Mouhamadan Mbàkke ma fa nekkal sëriñ bi di doomi Cheikh Mouhamadul Mourtada sama wajur wu góor wi nga xam ne liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi moo ci daan liggéeyal sëriñ bi dol bi moo ko yëkkati ne maa maa maa ci daan liggéeyal Sëriñ Tuubaa te magal njabootu sëñ Tuubaa gee ma daa woo ma di leen ko yëkkatil te bëgguma liggéey bi dàkk ma <laughs> ko bëgg a teg ci sa loxo nga wéelu ko lépp moo a maa ngi koy nuyu te di ko siyaar di ko ñaanalaat sama borom gën koo sàmm gën ko fee bàyyi eh, siyaare sëñ Jiiri Mbàkke Madina ma bàyyi koo ca moom ndax fulkul marchand bii ci weeru koor yépp moom laa koy jàngal xam ne bu ma fi bàyyi koo nii damay wa daal di fa fas yéene wàññikuwaat nii waaw waaye nag sëñ waa jar na ko ndax moom daj na coono yu ko fuuf te bëgg noo musal rek tax mu daj ko tooñ coono yi ñuy jéem a dajaat ngir jëmmam sunu xoolee lee rek lii jaral nu ko alhamdulilah noo ngi siyaare bu baax sëñ Abdul Karim Diop mm-hmm. suñu genn wàll ak sëñ Saalihu géey mu baax mee nu àndal sañ Xaadim Njaay mi ma bàyyi ko ca ca ca këram waaja fa ñëw fii mm-hmm. siyaare sunu njabootu bopp gi nga xam ne si ne ndeysaan yu metti la ñuy dund mm-hmm. soxna ami Eh, te dañ koy dañ koy toggoo ndax xam nga ab jàngkatu xasaay neexu te nekkal mm-hmm. du xam heure bu muy dem heure bu muy dikki du ko xam <laughs> yooyu yëpp dañ leen cee war di masaw waaw siyaare sunu waajur yi nu bàyyi ginnaaw yëpp rek Hmm. siyaare ñëpp ñi nga xam ne seen daal ñi ngi topp jotaay bi ñi sëñ Moustapha doon yóbbante lu seen i yoog sëñ bu baax bi hmm. soxna sa boo demee siyaaral ma ko lu bari ñoo ngi siyaar adduna bépp rek ne xam hmm. naa ñi i tur yombut ah soxna soxna Astu Jóob bu ngoy ñoo ngi koy a baax murid yëpp rek kenn gën ndax xam naa ne buñ fi bëggee nekk di lim euh, da dana metti lool tàggoo bayti maam Samba yi nga xam ne Euh, sëñ sëñ Mouhamadou Amar Mbacke. Mhm. maa ngi koy nuyu ca Louga sëtub sëñ Baara Mbacke. Mhm. damaa ñëw ci këram bis mu ne ma xas dëgg aajo boobu mu am Samba daa ñaane aajoom. Mhm. laa bëgg nga jàngal ma ko fii njàng mu teey ma enregistré ko ndax dama ko bëgg a mokkal. moom sëñ Mouhamadou Amar Mbacke. ma defal ko noonu te beneen sax ba ma fa dellusee mu ne ma mokkal naa ko. ko baag tey nag aajo bi ma am ci laa koy faj. ndax ñoom sëñ Tuubaa da leen nanguloon kon def tawasul lu jaar ci làmmiñ yi mhm. day tax eh, waaw. waaw ñun ñëpp ñu duggaale si. waaw bala nga koy yëkkati. mu mhm. mu yéene si lool lool lool ndeysaan Serigne Ahmadou Mbacke moom Serigne Fallou Mbacke Sohaibou. Mhm. kooku di sunu di sunu wéttal di sunu xaritu xol. di ko ziar bu baax a baax sëñ Ahmadou Mbacke. maanaam ñu ngi koy jeex bu wër a wër a moom moom dafa dafa daa nekk suñu biir xol rek sëñ Ahmadou nu ngi koy jeex bu baax a baax si bisu màggalu ku maamam ju tedd jooju Serigne Chouaïbou Mbacké amoon si lool sax teew màggal waaye nag moom euh, suñu xol na kon Mbacké Balla nu ngi lay bu baax sëñ Ahmadou Mbacké moom sëñ Fallou moom sëñ Chouaïbou hmm? man jox naa sama yaajo xutbub jamono bi feeñ mooy faj sama yaajo ma jékki baa may taxaw ma yeewu baa may nelaw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 بكل العدد يا ضيف